lambu moom dafa dafa wuyu turam da ngay lamb rek ba daj lamb moom da ngay làmbutu ba daj waaye damay wax ni moom mbër dëgg buñ ko dee wax mooy Modou Lo moo xam ak ku ko mën di daan ak ku ko mën di nangam ak nangam moom buñ dee wax mbër dëgg man boog man moom laa faral dama part personnel man moom laa faral ndax dama dama lekk dama lekk ay saraxam ba tey ndax man mii Ndakaaru laa jàngee Ndakaaru laa jàngee Daaru Tanzil fële nekkoon ca Sidi Fadia nga xam ni moom dañ daan jóge ci daara ji dem di <laughs> li may wax xam naa ni bu ko bu bu ko euh, borom ji di yëgee moom xam naa ni moom tawarkal la waaye ala kulli xaal daara daara ji néewatul boor boobu waaye daan nañ fa dem di ko gis muy bëreeg nangam ki nangam gis ñu ko ko dàq bëri wax dëgg te su ma doon jox ndam man su ma yoroon ndam di ko joxe moom laa koy jox waaw ala kulli xaal su ma yoroon ndam di ko joxe moom laa jox loolu loolu moom tabaraka wa taala dogal na ko te it seen seen mbir mi mu ngi bëgg a yàgg depuis cinq ans boobaag léegi war nañ cee jug ñoom sax ñu noppal seen bopp waaw ñoom it ñun ñu noppal seen bopp ndax mi ngi bëgg a yàgg te maa ngi gis ñuy wax ni moom bëre bi dafa war nañoo fexe ba mu am vaar loolu lu ci am solo la na ci waa CNG taxaw waaw euh, fexe ba mu am vaar nga xam ni combat bi day daal di doon combat boo xam ni moom lu leer naññ lay doon moom moom moom loolu loolu lu ci am am solo la moo gën ñu naan kat def na kat appuyé euh, daanu nag daanuwul moom yu mel noonu dafa dafa dafa war a jóg ci làmb ji xam nga xam nga Modou man dama koy ñaanal te xaw ma lii de moom moom dama koy wax man sama ñëw bopp docteur Lassara damay ñaanal Modou Lo te xaw ma fayuma xaalisam mosu moom ba ma koy gis boobu c'était à 2009 2012 diggante boobu man dama koy ñaanal dama part personnel te moom xaw ma te li ma leer ba leer mooy bari na ci moroom lool looloo ci ne alaa kulli xaal fi mu ne nit da ko bëgg bëgg koo xam ni do xam lan la du sax dama moom du dara waaye moom nit boo doonee gone am am am fu mu jaar ak yow ci yu mel noonu faaw rek am nga am affection ci moom waaw ya, moom moom loolu rek ko waral moo tax waaye moom misig ak nangam ak nangam xam nga ki nga xam da nga koo jël sa xaalis jox ko ak ki nga xam ne xamoo ko xamu la mu di ñaanal loolu loolu loolu loolu ñaan yàlla du ko mukk macha allah mhm. aha kay mi ngi am ba léegi moom si ñoom seen seen combat bi rek door mu daan la war dam moom moo koy jeexal incha allah waaw làmb ji rek du dóor mu daanoo koy jeexal